inna lillahi la inna ilayhi raji'un kii di Pape Diouf ancien président de l'Olympique de Marseille moo génn àdduna tey ci mardi bi fële ci hôpital fan selon des sources hospitalières ancien président de l'Olympique de Marseille dafa contracté woon coronavirus bi depuis des semaines placé sous assistance respiratoire depuis samedi Pape Diouf mi ngi woon fële ci hôpital Fann di ko ñaanal yàlla suuf sedd ci koom te yàlla xaare ko ci àjjana yu gën a kawe yi dal leen ak jàmm seen chaîne la Dakar Post su fekkee sa première fois la ñu ngi lay ñaan nga abonné ca